وأصحابه الراشدين المرشدين ومن تبعهم بإحسان واستنى بسنتهم إلى نفخ السور ورضي الله عن عبد الله وخديم رسوله موكي جولتي موكي تالوبي يدل سوات اغيين جسين جتاي بوب جتاي مرد صادق ميغا خامني سين سين يوتيوب غايدل تي في مولن كوي عمل تي سين بو mu jëm ci njàngaleem Cheikh Amadou Bamba Xaadimu Rasuul ak ñi mu defar ak mbindum sëriñ Touba ah, ñu tàmbali woon waxtaan woo xam ne dañ ko dale woon di ko def ci Cheikh Massamba Anta Ceebo a anhu ñu ñëw ak yéen nag ci ñaareelu xaaj bi ah, te bi nga xamee ne ma sàmba Sëñ Touba dem na ci géej gi ba ñibbisi bi muy dem gànnaar xam ngeen ni moo sax ma sàmba ñoo ànd bi mu demee sëñ Tuubaa boole na ko foofu ay kàngami naar yoo xam ni ñu géeju woon ci xam-xam ñu mottali ko am njàngam ngir sëñ Tuubaa waajal gu muy waajal ma sàmba a xër gi mu xër ci Cheikh Massamba bi sëriñ bi ñibbisi tamit nga xam ni li nekk gànnaar yëpp sëriñ Massamba day liggéeyal sëñ nga xam ni daawul sol daal ba am na naar bu ko gis sax ne sëñ tubaa xanaa kii sab jaam la sëñ tubaa ne ko tuub ko ab jaam yàlla rek moo ko am kii sama rakk la di sama taalibe si sërk ci man sëriñ Masamba daa mujj fu mu gisa naar bi jox ko junni ndax li mu ne woon sëñ Masamba ni sëñ tubaa kii xanaa sab jaam la loolu sëñ Masamba da caa bég ba saa bu masaana taseeg naar bi rek làmb kayitu junni jox ko bi sëñ tubaa ñëwee tamit ba nekk ci yéen jolof ci ni nga ko xamee foofe nag fa Euh, dëgg dëgg ab liggéeyam sëñ tubaa foofee la ndax wax naa la wax naa ko ci jeexatu waxtaan wi weesu bi leen sëñ tubaa wooyee mook sëriñ fàllu ak Cheikh Mamadou Moustapha ak sëñ Morokoy Bousso ne leen dama bëgg lii fi ñëpp wut si ngeen wut ko ndax bu ëllëgee bu ñëpp amee ngeen am li ci may dal rek mooy jaayante joxe sa bopp sëñ Massamba Ka doon sëñ tubaa am rek laa bëggoon waaw am rek la ñu bëggoon te xamuñu ni ñuy def ba am gannaaw tegtal nga ñu ni ñuy def ba am nag incha allah man danaa am ci la daal di laxasaayu nag nekk ci liggéey bi di bindal sëñ Touba ay kaamil di ko bindal ay xasida waaw nga xam ni ne ci mbind mi rek tekkal xasaay gi rek di liggéey sëñ Touba du ko tekki benn yoon du sol mbaxana du sol daal nekk ci loolu ci ama haksashin ba ni nga xamante ni si Cheikh Ahmadou Bamba ñëw na njaareem ci ama Lassasine ba ci Balsasine nga xam ni Serigne Touba ci la table nag di ko liggéeyloo liggéey boo xam ne moom rek moo ko jagoo mooy moom Serigne Massamba nga xam ne Serigne Massamba dina ñëwaat sax chef d'entreprise la ko Serigne Touba defoon moo jiite woon waa daaray kaamil bindikati alxuraan yi bindikati xaside yi jànkati xaside ak moolkatu xaside yi mooy ñu daal defal jaafar yi yi ñoom ñëpp sëriñ Masamba moo leen moo doon seen jiit waaw loolu dinañ ci ñëw ni sëñ Tuubaa nekkee woon li sëñ Tuubaa créé woon projet de société te sëriñ Masamba jiite woon ko loolu dinañ ci ñëwaat incha allahu taala waaye xam ngeen ni ko jiitu euh, sëñ Tuubaa da ko féetale woon ci bind kaamil ak jàng ay kaamil ak di naafile alquran am na bis mu woo ko mook ñeneen sëñ Fallou sëñ mu sëñ sëñ Omar Mbacke sëñ Mouhamadou Moustapha ak ñeneen bi ñu nuyoog moom ba noppi mu ne alxuraan moom yi nu ngeen def ak moom ñu ne ko ah, Mbacke xanaa suba boobu nga ñu joxoon day noo ngi koy doxalee nanga nu ko waxee woon sëñ Tuubaa ni ñu ni ko gannaaw wattu nañ ko loolu ñu naan ñaari xisib ak ñu ngi koy naafilee guddi gu ne sëñ Tuubaa ne bismillah kon day yéen yéen a nga ci yoon wa waaye nag dikk leen ma dolli leen sasaat leen weneen sas kenn ku ne ci yéen dama bëgg bu xëyatee lu mu tabja tabja na jàng ab kaamil ak nu mu ko mën a jànge fi jant bi fenk ba fa muy sowee na ngeen fexe daa ba dugal ko fi loolu leen sëñ Tuubaa dollil daal di loolu sama borom tabaaraka wa taala moom ma ko digal ci yéen moom ma ko sant ci yéen la leen ci fàggul nag jëmul ci yéen rek dana leen romb jëm ci ñeneen ñu aju ci yéen jëmul ci yéen dong waaw te yéen ñii da ngeen a bokk ci ñi nga xam ni ñi yéen ma gën a jige yéen ma gën a jàppale sama liggéey bi loolu kon daal leen képp koo xam ni xëyati nga ci yéen foo julee tee suba daal na daal tàmbali kaamil bi nga xam ne daa nañu def lu ñu tab ja tab ja tab ja ak liggéey yi li muy bari bari bari bala ñu julli gee daa ñëw ci sëñ Tuubaa ne ko kaamil yi yegg na waaye sëñ Massamba nag moom ci biir loolu mu amaat geneen jagle goo xam ni moom kenn fekku ko ca waaw kenn jëkku ko ca muy bind xaside yi ak maas ko foofu tam li ñu fi bëgg a leeral mooy du caagee nag lépp lu sëñ Tuubaa bind rek ma Massamba moo ko maas déedéet loolu dafa am ak leeral ndax dafa am mbindum Sëñ Tuubaa moo xam ne da ko soxlaa maas daa soxla ñu maas ko li mu soxla nag ñu maas ko mboolem li mu soxla woon ñu maas ko mooy li nga xam ni moom la bëgg mbindee fii gis ko jot ci ba jariñoo ko mooy tey lii nuy jariñoo tey jànkatu xaside yeeg murit yëpp ak jullit yëpp di ko jariñoo mooy tey li Sëñ Tuubaa bëggoon Sëñ Massamba maas ko loolu la ko jox mu maas ko toppatoo ko ba tey jii ku sa jot sëriñ ma Masamba ndax nga jot ci waaye dafa am yeneen bindi sëriñ Touba yoo xam ne liñ ci maas li muy bari bari bari bari liñ ci maasul moo ko gën a bari loolu di lu yéeme mbindum sëriñ bi ci maas li mu bari bari bari liñ ci maasil moo ko gën a bari ndax sëriñ Touba dégg nga li mu wax waaw madaxtuhu fi sirri wal jihaari bi muxjilil buxuuri wal anhaari la wax teg naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci lu nëbb ak lu feeñ loo xam ne géej ak géej ak dex yi li ñuy bari bari loolu rusuloo na leen gàcceel na leen kon xam ngeen ne loolu bari na moo tax mbindi sëñ Tuubaa am na ci yoo xam ne liñ ci maas li muy bari bari liñ ci maasul moo ko ëpp te loolu lépp nag daanaa wax sëñ Masamba ni ko yaa koy seet ba gis ko yaa koy dajale boo ko dajalee jox naa la digal nga gas lépp suulal ma ko suulal ma ko ci gër gi kon nga gis ni sëriñ bi li mu bind suul ko moo gën a bari fuuf li ñu jot daan ne ko Masamba xam nga lu ma jublu ci suul gee mu ne ko déedéet Mbàkke mu ni ko am na ci lool moos sama borom tabaraka wa taala jox na ma ko ci mbind mi te jox ko kenn te as nag buñ ko joxee fukk bu ñu ko joxee fukk nag bu goree day delloo juróom yi sëñ Tuubaa loolu wax sama sàmba ne ko xaside yi mu ne ko ah mu ne ko sama sama borom jox na ma ci loo xam ne joxu ko kenn kenn kenn ci ay may daal ne as gor nag bu ñu ko joxee fukk bu goree nag day delloo juróom yi day delloo juróom yi loolu li ñu ciy déggee mooy li mu lu la bëgg a wax ak li mu li ci feeñ ñu jot ci moo tax mu ne ko as gor buñ ko joxee fukk bu fekkee goree na loolu la juróom yi waaye Masamba mu ne ko Mbàkke mu ne ko mbir mi de ay yëfa ngi ci yoo xam ne bu ko fere yi gisoon muy nun ñii nañ war a taxawee ma bëgg ñu taxawee ko seen diggante seen borom duñ ko taxawee te bu boobaa ma Masamba du leen wàññi dara sëñ Tuubaa ne ko xaside yooyu ma denc lu suul ko ay mbir nga ci yoo xam ne bu ko taalibe yi gisoon nañ war a taxawee seen diggante seen boroom duñ ko taxawee te bo te Masamba kat bu boobaa du leen wàññi dara kon nag loolee lépp ci sa loxo ko teg yow nag yii nga xam ni mbindeef yi ñoo ko war a gis di ko jariñoo ci zahir ak ci baatin ci sa loxo laa koy teg yépp yaa ko war a maas lépp yaa ko war a toppatoo ndax Masamba xasaayid yi kat ñoo dikk fii ci man ñoo dikk fii léegi ne ma yow sëriñ bi kat xaside yi ci yow la ñun suñu borom wàcce ci yow lan nu wàcce kon de xaside yi dañ ko wàcce sëñ tuba xasaayid yi dañ ko wàcce ak tubu naaxilan min allawxi xalami wa fi hurufi lam amin la wax waaw del wax ni moom sëñ tuba li may bind kitabati min lawxi rabbi tankhulu laa yamtari fiha nabilun yàqilu sëñ Tuubaa ne sama xalima sama mbind mi ci aliyu maxfuus lañ koy toxale ko indi am fum mu ni euh, xalima gi daa jàkkaarloog xalima ak suñu borom ga àllu sama sama këyit yi jàkkaarloog àllu yi suñu borom ja am na feneen tamit fu wax euh, lu mel noonu di wax ne moom sëñ Tuubaa suñu borom may na ko accès makkanani fii lawhihi wal xalami wa minhuma yaa man xale mii sëñ Tuubaa nee na yàlla dafa ma may accès ci allo yi mahfuus ja ak xalima ga maa ngi leen di xamal ne it sama xalima ak sama daa ak samay kayit ci xalima ak suñu borom ga ak ci alwa ja fa lay toxale loolu la sëñ Tuubaa wax sëriñ sàmba ni ko nag xasida yi ñoo dikk fii léegi ni ma ci yow lan nu wàcce waaye ñi ci jëm ci nun ci sunu borom jaam ñi nañ ko teg ci loxol ma sàmba xasida yi ñoo wax sëñ Tuubaa lool ne ko ñun ñii nga xam ne dañoo jëm ci mbindeef yi nga xam ne suñu morom jaam lañ lu mu ci mën a doon ci ñun na nga ko dog ci loxol sëñ Masamba daal ni sëriñ bi te nag ñu dénk Masamba mu saytunu xasida yi ni sëñ Tuubaa nanga nu baddaleeg Masamba nanu Masamba yi taxawu ci gépp wet loolu sëñ Tuubaa ko wax Seex Masamba defe naa ne loolu foofu nag doy na doy na ab yam waay xasida yi sëñ Tuubaa yi ñoo ne sëñ Tuubaa Nangutok, ñu dox nang ci loxol sëñ Masamba te nangu ñu denk sëriñ Masamba te nangu ñu balta lekk sëriñ Masamba te nanu ay taxawu ci gep wet sëriñ bi ne ko ji nak may tuñ ma diirub fukki at ak juroom yi ma nekk yi may di fasiyene def njaareem gi genn khalima gumay seppati ci da di ci tag yonnati bi salaa wasallam di ci wax wenn araf jeme ko ci yonnati bi te du yaay sot khalima ga dol mom dotu am xasida gu may bindeeti xalima gu may bindeeti ñu sot ko wax caw araf jëme ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam yaa koy sot moo tax sëriñ ma sàmba sotal na sëriñ Touba fukki junni xalima ak ñaar fukki junni xalima ak ñaar Cheikh Masamba sotal na ko sëriñ Touba ndax histoire xalima yi am na ku ñuy wax sëriñ Modou Absa Fall dëkkoon Ngiig Fall di ku baax ku yalla baxal di bàyyi sëriñ Mayoro Fall mo don wólëre serigne Touba waw serigne bi dako fonkon lol, sop ko lol mom bisne serigne Touba woko mu ñew mu ni ko Absa dama bëgg xat banti xat yoy nga xamni mom lay jëfëndiko ay xalima li ci tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam yaama ko wara wutal yaama koy top tol buyit mako fi ci ndiarem waaye nag dañ lay wax nag fa muy jaar sëñ nga xam ni waa sàkkal ak waa rawul ak waa raw ngiig faal ak ak dëkk ko wër yëpp ci yoonu ndar wi foofu waay mën a mën a nekk rek sëñ mu ab sa danaan la boo mën boo foo waay mën a nekk te am xat nag mu ko indil sëñ Tuubaa ko nag xat mi ngi may indil moo du ab sa du doon xatum jàmbur xatum jàmbur te ki koy dagg day sell day jàpp ba sell waaw te nag bu koy dagg day ànd akum njàpp ni ma ko waxee léegi bu ko defee nag ñu yët ma ko mu ñëw bu ko defee sëñ wóoru ab sa faal day wër dëkk yooyu ngiig faal dem rawul dem dëkk yu ko wër yépp ba sàkkal bu ko defee dajale xalima yi nga xam ni xalima yi bu ko dajalee dana mat wagon wagon saxaar yi ba mu fees dell ak xalima banti xat bu ko defee ñu takk ko dëgër bu boole bu ko defee sëñ Mourou Absa Fall la ciy boole ay ponkal fay ca lañ ca war a fay bu ko defee buñ dikkee ba Louga dana fekk sëñ Touba jox ndigal sëñ Massamba soxna loo di ab seexam mu ànd ak mbooloom di taxaw ñu taxaw fa di teeru xalima yi bu xat yi ñëwee ba yegsi moom it dana ci booloo dana ci boolewaat moom sëñ Masamba Soxna dana ci boole ñam ci war a boole ñëpp ñu àndal ak saxaar gi gunge ko di ko gunge di ko gunge ba yegg Tiwaawan bu ñu yegg si Tiwaawan nag danañ fekk Cheikh Maru Bëggey radiyallahu anhu moom itam di Cheikhub sëñ Tuubaa yebal an ay ndaw ca gaar ba yoo xam ne xatma la ñuy xool si di ko saytu ba xam nu mu demee ba di ko toppatoo waxtu woo xamee ni xat mi nag egsi na ba xombal am na keneen ku sëñ Tuubaa di yebal ku ñu wax sëñ Mor Cuun bokk ci magi sëriñ bi moom it dana génn ànd ak ñam war àndal ànd ku njabootam gépp ñu ñëw di saytu xalima yi euh, xat mi di ko toppatoo ba xam mel na ni mu war a mel di ca barkeelu ko def yëf suñu noppee nag ba mu romb xombal nag ba xat ma ñëw njaareem Cheikh Ibra Fall Babul Mouridine moom lañ koy jox moo koy wàcce dana ci ànd ak waa kër Cheikh Issa Diène noonu la ko Sëriñ Tuubaa organisé woon dana ci ànd ak waa kër Cheikh Issa Diène radiyallaahu anhu bu ñu yegsee ba ci pencum njaareem sëriñ bi mooy joxe ndigal moom Sëriñ Tuubaa ni nañ ko yët sëñ Balla Fally jën Sëriñ Balla Fally Dieng moomu nag mooy denc xalima ya mooy denc banti xat ya muy wagon xat lañ ca soxla nag nga xam ne bu sëñ tubaa soxlaa ay xalima ma sàmba ci boppam mooy ñëw ci sëñ Balla Fall Dieng lañ ca soxla ñu mu teg ko ci loxoom bu ko defee ne ma Masamba mooy dugg fi barab mooy dugg fi muy dugg sotal ci sëñ tubaa la mu soxla yóbbul ko ko sëñ tubaa taalif ci xaside yi gis nga organisation bi gis nga fa mu déparé sëñ tubaa nii la organisé woon ab liggéeyam bu jëm ci wàllu xalima yi nga xam ni bi mu ñëwee Sénégal lu mu ci taalif bi mu nekkee njaareem fii la jaar xalima yooye ba ñu seetee ba nga xam ne seet nañ ko li nga xam ni sot nañ ko te sëñ ma sàmba sotal ko ko ci xalima moom sëñ Tuubaa ba jébbal ko ko toll na ci fukki junni xalima ak ñaar waaw xalima gu sëriñ Tuubaa masa fab bi mu ñëwee njaareem ba ni mu làqoo ci suñuy gët wax ca dara tagg ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam sëñ Masamba ko sot defe naa nag loolu nag looy na sëkk ab liggéey liggéey bu ko gën rëy moom defe naa ni amul sëñ Tuubaa it bi muy bëgg a làqu woo na sëriñ Masamba moom ñëw mu ni ko ma sàmba mu ni ko Mbàkke mu ni ko man de dama bëgg damay bëgg a tukki tukki boo xam ni danaa ci yàgg lool danaa ci yàgg lool waaye nag dénk naa la xasaayid yi te ñoom kat ñoo del ci fii ci man di feddliwaat seen kóllëre ak yow lépp day ci sa loxo laa ko teg lépp a ngi sa loxo ne ko dugal ci biir kees yi ak gaal yi mbooleem téere yi fi ne daa yeñ ko doon bindee ak xalima yi fii la jaar beeg si ci yow Modou Absa Fall moo ko dajale mu jaar fi mu jaar beeg si waaye yaa ko sot ba ma mën cee jariñu xalima yi xam nañu loolu sëñ Tuubaa ne ko xalima yi xam nañu loolu xalima yi nag li tax deesu leen sàggane ne ko bu bis buñ bu ñu àggee bis penc muy yomal xiyaamatil akbar xalima yooyu dañuy teew daaya teew xalima gune li mu wax mu génne ci biiram ñu jaarale ko ca wax ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam xale xalima ga dana ko nettali ci péncum yàlla bu kero bu kerogee loolu nag ma sàmba bu boobaa nanga sant suñ borom bu baax ndax bu boobaa yàlla dina teew yonent bi la alayhi wasallam teew suhadaaw yi teew saalihiin teew borom jamono yi ñëpp teew su boobaa Masamba yow mi doon liggéey liggéey bi di nga teew kon nag na nga sant suñu borom tabaaraka wa taala te sëñ Tuubaa moo wax ni wa anna haadihi al-qasaa'id tuqra'u fil jannati bi hadrati rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallama asaabi alayhim ridwaanu daal ne ko kon nag ma sàmba dugal ci biir kër gi kees yi seetal ma ko seetal ma gaali téere yi ak téere yi lu mu ruqee ruqee xam nga ko goo seet te xam ne yooyu naa génne bu génnul woon na ko génne bu yeyoo denc nañ ko daal di denc te bu ko kenn gis ya jël si itam nañu leen gas ci digg ëtt bii ba mu xóot ñu denc leen fa ñu jiitu ji foofee nga xam ni bu ëllëgee fa la fa la ñu jëm mu yomal xiyaam secret bii sëriñ Masamba amoon na ko ci Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul moo tax xaside yi defaloon na Cheikh Masamba xar baax xarbaax yu yéeme nag ndax wax nañ ni si masamba daana samp juróom-ñaari sondeel yor kurusam bu ne tocc benn per ab sondeel tàkk bu ne tee tocc beneen tàkk ba juróom-ñaari sondeel yi yëpp tàkk mu woo mbooloo ne leen fay leen ko ñu ëf bay bëgg a dee sotti ñu ndox bay bëgg a dee du fay bu ko dee mu ree daal di jëlaat kurus ga ni tocc benn benn sondeel fay mu ree ni tocc benn sondeel fay ba juróom-ñaari yëpp fay bu ko defee nag mu daal neen yooyoo gi fi nag ak yeneen ak yeneen yi yoo xam ne sëñ Tuubaa defal na ma ko kooku mooy ma sàmba radiyallaahu anhu euh, mu nekkoon tamit ku yéeme moom sëñ Massamba ci liggéey bi nga xam ne moom la doon liggéeyal sëñ Tuubaa ci xaside yi ndax sëñ Tuubaa euh, Cheikh Abdoul Khadir Mbacké radiyallaahu anhu dafa am seere bu mu see doon seere ci sëñ sàmba wax nañ ni sëñ Abdourahmane Lo la ko waxoon dañu ko woon sëñ ma day borom tawféex la ndax dama noppal sëñ ndax sëñ Masamba day euh, ku noppal sëñ Touba la ndax nee na ku nekk bi nga ñëwee ci sëñ Touba la nga àndaale te mu te mu totoon te mu totoon a mooy la nga àndal te mut àndal lu ne sëñ bi dindi na ko ci yow sotti ca lam ca war a sotti jëf ca leneen ba mu fees waaye sëñ ma Masamba moom sëriñ bee jëkk ci moom sëriñ bi mujj ci moom ba coono boobee fekk ku ca kon noppal na sëñ tubaa kon boom moom borom tawfeex la Euh, sëriñ Massamba bokk na ci ay jagleem moom ma sàmba xasida gu yees gu sëñ Tuubaa masa taalif gu mën a doon jox na ko sëriñ Massamba mu yeesal ko maas ko maanaam day bindaat mbindum sëriñ ba noppi doog ko maas mais du saa génnu maas bindum sëriñ bi lay maas waaye da koy bindaat ba noppi maas ko ndax sëñ Tuubaa ni mu daan bindee moom day day day day ñëw rek jaar ci ko këy du jàll ndax ndigal la amoon ci mbind mi waaw daal di nag bind yi moom bind na ci sëriñ bi bind na ci loo xam ni kawe na njort ndax sëñ Tuubaa bi min na door a ñëw njaareem mook ma Masamba Kanni Buso ak sëriñ Mbàkke Kanni ñoom la sëñ Tuubaa daan binduloo moom la daan faral di binduloo waaye mujj na moom rek moo féetewoo lépp waaw waaw jagoo mbind bépp Euh, lu sëñ Tuubaa bind njëkk yoonu géej gi ak yoonu géej gi ak gànnaar ca yéen ba ni mu ñëwee yaare lépp la boole jox sëñ Masamba mu bindaat ko mbooleem lu sëriñ bi bind lu mu baatine baatine ba ca katam laahu tabaaraka wa taala yi sax sëriñ Masamba moom la ko sëñ Tuubaa bind lu woon lépp yeesalaat ko mu nekkoon ku mënoon a wax ak nag sëriñ bi loolu moom la ñu mujje ku mënoon a wax ak sëriñ bi la ndax sëriñ bi moom ñi ma doon wax ak moom bëriwul moom sëñ Touba euh, bëriwul de ndax ku ma sa ñëw di jébbalu si mbaa ngay indi addiya bu sëñ tubaa génnee moom rek ay toog ci wetu sëriñ bi ñëpp dañ koy dànd lu ma juróomi mètre waaye sëñ ma Massamba rek mooy toog ci wetam kenn du ko jot lii ay waxam moom sëñ Touba waaye bu waxee ba noppi la ca lënt nit ñi sëriñ sëriñ Massamba moo leen koy leeral li ko sëñ fal waxe man li ahaadi si haaji cheikh yeñ mooha waaw xifsan wala tul fii yaxtabitu nee na fu ñuy giseeti koo xam ne day nett li mbirum waxi sëriñ bi te du ci làmbatu ni ko sëriñ bi waxe woon ni la koy waxe moo tax sëñ Masamba bu sëñ bi masaana waxtaan ba génn rek buy sëriñ bi dugg rek nit ñi ñu daal daw wër wër sëñ sàmba bu ko defee nag la ca moo leen koy leer raat waaw loolu lu jafe-jafe la te sunu borom tabaaraka wa taala defaloon na ko sëriñ Massamba ci Cheikh Amadou Bamba Xaadim Rasul daana waxi sëñ Tuubaa waxin woo xam nit ci diggam ak taalibe yi jafe na ku mën a waxee noonu daana wax sëñ Tuubaa ne ko Mbàkke ñun de sant na nu yàlla ci dikk gii nga xam ni dikk nañ ko daaru duniyaa daje feeg yow ba noppi nangoo ànd ak yow nga nga nangoo ànd ak nun nga dimbali nu teg nu ci yoon wi nga xam ni ku ci jaar jariñu àddina jariñu jariñu alaxira loolu de Cheikh Massamba daana ko wax sëñ Tuubaa dimbali nu nag ba ñu mën caa jaar maa ngi sant yàlla di santal mbindeef yëpp si dikk ci daal duniyaa mbàkke xol yëpp sedd na mbàkke xel yëpp dal na mbàkke cër yëpp sawar na ci liggéeyal yàlla calam nu liggéeyloo ci li taxoon mu indi mu indi nu daaru duniyaa nun ñëpp awloo nganu te sawarloo nanu te mën nanu te yaa tax loolu sëñ Masamba daanu koo sëñ Tuubaa ñun ñëpp awloo nganu ñun ñëpp sawarloo nganu ñun ñëpp man nga man nganu te yaa tax kon nag noo ngi lay sant santu koo xam ni fu cantuk jaam masa yem diggam ak boroomam rek nun taalibe yi ak jullit yi sant nañ yàlla ci yow ci boole gi mu boole ak yow sant nañ sant wér goo xam ne weesu na cant yëpp waaw daana daana ko yokk sax ndax daana wax sëñ Tuubaa ne ko nit ñi dey motuñoo topp ndax xamuñu fu jëm kon dimbali leen dimbalul ñëpp mbàkke yërëmal ñëpp mbàkke taxawul ñëpp waaw mbàkke téyel ñëpp waaw mbàkke ku génn ci yow it dem amul fu mu jëm waaw lu ci waay def te dëppoowul ak la mu war a def xelum boppam rek ak xelum doomu aadama waaye seenu seenu bëgg ci yow day ak seenu gëm ci yow day moom amul fenn fu muy yem yéesul fenn yaa leen gënal seeni ndey yaa leen gënal seeni baay ñun ñëpp maase nañ ci loolu te te noo yey nag ndax da nga koo gën da koo ji ci ñun yaa gën ci lépp lii sëñ Massamba daanaka wax sëñ Touba te waxin wii day euh, am na njëriñ lool. kon ma Masamba moo tax sëñ Tuubaa ne ni ma Masamba bi maa lam yaxdim nii bii ahadun fa xasastuhu bi maa lam axsus bii ahadan Masamba na ma loo xam ni kenn liggéeyalu ma ko waaye Masamba it jagleel naa ko loo xam ni jagleelu ma ko kenn ba ci daaj yi nga xam ni e, xaside yi ñuy jàng yoonu murit sëñ bu wax na ni yoonu murit de sëñ Masamba bokk nañ ci ñu ko yaatal ndax sëñ Chouaïbou nee na bi ma daan tukki ci laa xam ne moom ñi gën a yàkkale yoonu murit ëpp ci mbooloo ci la bokk moom ma Massamba ndax maa ngi ko xamee ci daanaa jóge fii ci waxtu woo xam ni loolu sëñ Moustapha Abdou Khadir moo ko nettali waxtu woo xam ne celli gerte yi laay romb te bala maa dëpp celli ruuj lay romb waaye mosumaa dem ci benn dëkk te gisuma koo xam ni dañu naan ma kii taalibe bi sëñ Massamba waaw man nga faa dal fu ma dem faw ma gis fa taalibe bi ma Massamba tanaa te daanaa dem ci tund woo xam ne daawu ko bokk kenn sax ñëpp ay taalibam la ñu doon te mosuma fàttaliku dëkk mu ma dem te gis ma fa taalib sëñ Massamba sëriñ Massamba bokkoon na ci fi nga xam ne féete woon na fa sëriñ Touba te bari féetewuñ ko fa man nga ne sax kenn féetewu ko fa mooy ku mas a dem moo lay jëli moom sëriñ Massamba moom sëriñ Massamba ku mas a gisit te jàpp ni boo dikkee ci liggéey bi dana baax dana fexe ba nga ñëw ci liggéey bi sëñ Touba bi moo tax bokk na ci ñi gën a yaatal yoonu murit loolu nag tukki bu bari bi daan tukki ngir yaatal ndax sëñ Tuubaa dafa amoon yéene yi wër ci réew mi yëpp fu ne bu dem fa yeggale fa mission bi waaye gannaaw mënu ko dana woon sëñ Massamba yow laa ko sas yaa ma koy defal tukki bi it ci biir tukki bi ku mas gis képp koo xam ne mas na laa gis nga yéeme rek wala mu xam ne lii bu ko indee mu neex sëriñ Tuubaa dana ko indaale waxtu bu masaa dégg kuy jàng alxuraan dana fexe ba daara ju mën a mën a doon dana fa dem su demee dana fa fanaan jàngaloo leen alxuraan lu mu am jox leen ko ne ndax ku tabe woon waaye ña ca neex baat da leen di woo ba ñu ñëw mu ne leen yéen day dama fas yéen wólëre ndax alxuraan moom dala melul ni moom bu leen ko bàyyi nangeen ngeen ci góorgóorlu waaye lii ngeen di wax léegi ma di ko dégg jaral na lu ne ma bëgg nag yoon wii nga xam ne moom laay dox ci réew mi ma ànd ak yéen ñu ànd ko néew ma sax fu ngeen fanaan ngeen di fa def waaye ngeen di fa def di jàng alxuraan waxuma loolu waaye fu fanaan fu ne rek ñu bokk fa fanaan bokk waxtaan ci alxuraan ngeen jàngal ba alxuraan ñooñu it da leen daa teral lu mu gàtt gàtt gàtt gàtt daana leen taral di leen lugat di leen neexal ba indi leen ci sëriñ tubaa loolu sëñ Massamba bokkoon na ci ab liggéeyam euh, ànd gi mu ànd ak ñoom it ci tukki boobee nga xam ni tukki bu yàgg lay doon ñoom de lu mas sëñ Massamba am ñoom la koy jox waaw lu mas a am rek ñoom la ko daan jox ñoom jànkati alxuraan yooyu daa leen neexal di leen teral nga xam ni lu ñu la daan jox ci benn kaamil fukk fukkam la lay jox moom sëñ Masamba fonk leen lool noonu lay def di leen naxtaan di leen naxtaan ba indi leen ci sëñ Tuubaa eh, ñi nga xam ni mënoon nañoo bind kaamil tamit ci jamono yooyu nga xam ne dañuy bind kaamil di ko wecciku moo amoon bu njëkk waaw moom da leen di woo binduloo leen kaamil bul bu ñu bindee kaamil ba yeggal lam leen daan jox lañu leen daan jox ci benn kaabil mu jox leen fukkam moom sëriñ Masamba waaye ñi nga xamante ni euh, xereñ nañ ca ci baax gi moom sëriñ sàmba ak xereñ ga ci biir ñooñu dañ daan bindloo ahbabtu rabbal alamin léeg-léeg sax moom ci boppam moo koy bind ci suuf di leen ko jox wala mu bind fataxa jox leen ko mbaa malaktu mbaa fuusti mbaa xaside yooyu ñu daan jàng jës bu ak mu waaye boobu mu xaddamaatit ñaari weer yi nga xamante ni moom la daan dem ci àll bi wala ñetti weer balaa taggoog ñooñu faw ñu mokkal ko dana fexe bañ mokkal ko bu ko defee buy ñëw nag ànd ak ñoom ci sëñ tubaa indi leen su ko defee ñu jàng xasida jàngal ko sëñ tubaa wax nañ ni sëñ Mor Jaxate mi nga xam ne moo daan noddal sëñ tubaa ak noddam ci sëñ Masamba la la bàyyi koo ndax moo dégg baatam fexe ba mu ñëw ci sëñ tubaa ñu ko noddal rek mu nodd bi ko sëñ tubaa déggee rek dane ana ku doon noddu ñu ne ko sëñ moor Jaxate de moo doon noddu ca la nag sëñ Tuubaa nangootul keneen noddu ku dul sëñ Mor Jaxate te booba fekkoon na si mu Lamin Jóob Dagana daana ko nod daana ko noddloo ak naar bu ñuy wax moor Jëng bu dee jàngkat yi tamit ku mel ni Ibra Fall buuba sëñ fa sëñ Masamba mii moo jóge fii di tukki gis ko bandi bi neex lool fekk na booba sëñ Ibra Fall buuba taalibe sëñ sëñ Daaru Asan Njaay la woon waaye ba mu ko gisee rek dana ko yow de sa baat bii faaw ma fexe ñu ànd ba ci sëñ Tuubaa waaw ndax moom ab tukkeem danaa neex lépp lay ne ci biir euh, bu ko defee nag mu ànd ak moom ba ñëw ci sëñ Tuubaa Ibra Fall boobu moomee ba mu ñëwee ba gis sëriñ bi sëñ Masamba jàngaloo ko nag boo ko sëñ Tuubaa déggee ne daal koy woo mu ñëw mu ni Ibra Fall booba mu ne ko Mbàkke mu ne ko yow de bala sun borom tabaraku taala di bind jang sama xaside yi mo taxoon mu bind la te lolou mu ngi jare ci Cheikh Massamba radiyallahu anhu ci jamono yoy sax wax nañ ci la Sëñ sabab lu fukki nit ak ñaar yi nga xam ñoko daan jangal xasida fu mu nek seigne Massamba mo daan def fu gis borom bat bu neex rek indi duggal ko ci biir kurel gi noné la def ba am ñoo xamni seigne touba mo leen ci duggal bañu mat fukki nit ñaar bokku na ci ñoña sëriñ Cheikh Ndaw magi sëriñ Yuusu Ndaw ca la bokkoon ku ñu wax sëñ Aliou Sylla ca la bokkoon bu saate ak ku ñuy wax Baye Mayib Guèye mi mi ngeen miin ci la bokkoon ak ñu bari nga xam ni daaj yi ba Ibra Fall bu woo sax am nañu am nañu am nañu wax ni am na daaj boo xam ne sëriñ bi ci boppam moo ko dugal ci xolam keroog ba mu ko jàngee sëñ ma sàmba daa mbëkk pen bi ba génn daanu ba mu jógee ci la ànd ak moom ba ci sëriñ bi ne ko nettali ko ci kanamu sëriñ mu dégg ko ba mu ko nettalee daaj daaj ba muy daaju Ahbabtu bi ñaareelu daaj bi ba mu ko daajee keroog Serigne Touba ci boppam dafa jóg taxaw daal ni Masamba ana ko wax loolu mu ko ah Mbàkke loolu bokk na ci li nga xam ne yaa ko wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne kon ah alhamdulilahi rabbil alamina njàngum xasida mi ci gàttal rek mooy Serigne Masamba mooy ki nga xamante ni moo ko organisé nga xam ni am na daaj yoo xam ni Serigne Touba moo ko dégg ci malaayika yi yii mu dégg ko ci jigéenu xóorul ayni yi jox ko Cheikh samba mu ne ko daaj xaside yi man nga ne xaside yi sax daaju kuréel man nga ne bëriwut ndax daaj yu bari daaju daaju rajo si lañ jël ak daaji aw yi daajaat ko waaye daaju kuréel boo ko seetee daanaka mooy daaj bii Cheikh samba daan daaj daaj boobu Sëñ Tuubaa ci boppam moo wax ni moo ko dégg ci malaayika mu xarabiine yi ak jigéenu xóorul ayni yi ñu di ko daajo noonu mu indi ko Cheikh Massamba kon nag kooku mooy Cheikh anta ceebu mu liggéeyal sëñ tubaa liggéey bu rëy boo xam ne sëñ tubaa moo ne xadama nii ma sàmba bi maalam yaxdum ni bihi ahadun fa xasasuhu bi maalam axus bi ahadun bokk na ci ay kéemaanam it ay atam ci boppam la wàññi ndax ku ne xam na ni at yi nga xam ni sëñ ma sàmba waroon na ko dund desoon na ñetti at waaye ay atam la rafaatale Cheikh Mouhamadul Moustapha radiallahu anhu yàlla dogal bi mu jógee fii dem ci ci ci ci Kaolack doon def ab tournée foofee fa la ko ndog dale fa la liggéey ci 1942 ñu indi ko denc ko fii ci barabi Touba yi yal na yàlla dolli ay leeram te yàggal fi ñi ko fi nekkal muy Cheikh Serigne Moustapha mbakke ak Serigne Mamor ak njabootu Cheikh Massamba gépp yàlla leen fi yàlla yàggal te wéral leen ba li ñu yéene liggéeyal seen waajura ñu def ko ci seen coobare wa min huna nastawdi'ukum ila maratin ukhra والسلام عليكم ورحمة الله عباد من يفعل ما شاء لمن شاء ما لهم سقط زمن